Thank you. rek El Vision Média du bàyyi benn yoon fii nag ci pik num tudd yëmbal wàccee a nu na ci àddina ñu ngi fi fekk benn ndaanaan boo xamante ne macha allah muy muy jeune boo xamante ne def dafa muy jaat sekk borom géejawaay macha allah jaat nuyu naa la. waaw waaw sama jigéen maa lay ziar yow da baax waa El Vision waa El na mun naa leen maa ngi leen di ma ñëw fii nag yëmbal set samay jigéen waaw ñu bokk sama fan si club ndax ki yëg amoo fayam ah ba bëgg la amoo fayam la lu xewle rek fu mënti nek da nga wara dem teewal ko lool rek moy aduna wa dëgg la Thiat Seck tay nday o Fall di di di di sargal jigen ñi ñu jup ci le 8 mars journée mondiale de la femme nday wone dafa jël bis bi jagleel ko jigen ñi en tant que goor yow nga ñëw fekk ci nday o fi pour ci sargal bi lool noko dundé wa jigen moy suñu yaay jigen ñi ñoy suñu yaay jigen ñi mom kenn mul seen fay nak bu won yaay mom mu ñaaw kon yalla suñu borom sakk jigen sax xamuko kon yàlla suñu borom moo sàkk jigéen te jigéen mooy suñu yaay kon jigéen dañ ko war a warmaal ndax jigéen il foog mu xam ki doon moo waral maanaam xale bu ci réglé bañ maye la caat woyal la baara mbay. waaw ah, dëgg neexul caat sekk nee xale bu ci la ba ñu ba ñu maye la caat sekk woyal la baara mbay waa caat yaa ngi ci lan nag. waaw maa ngi ah. ci lan lan ngay waajal pour sa fans yi. waaw woyal leen rek comme que fi jigéen la nga woyal xale bu ci réglé bañ maye caat woyal la baara rek. waaw mosal ñu ci tuuti ñun waa El Vision Média xam nga ñun ak yow dañoo yàgg depuis géej waaye incha allah nooy tàggatoo pour si rek cant jigéen ñi moom mooy suñu yaay man kontaan naa yàlla na jàmm yàgg télé bi nag yàlla na sax amiin yaa rabbi yéen a ko gisandoo Thiat Seck daal teewe na nu ne ci àddina fii ci géej waaye dëgg neexut